nañu dakkal cour constitutionnel bi am jamono ji ci réewum Sénégal ay intellectuel maanaam borom xam-xam yu fekk baax fii ci diwaanu Afrique ak xiit ay activiste yu fare ci société civile bi ñoo daal di daje ci Abuja ngir waxtaane tolluwaayu réewum Sénégal ak naqar bi nga xam ne am nañu ko bu ñu gisee njiitu réew mi Macky Sall di jëfandikoo laxme bi rawatina gendarme yi ngir génn ay parlementaire maanaam ay député foofee ci assemblée nationale ngir ñu mën a wote projet de loi bi nga xam ne dëppoowul benn yoon ak constitution bu Sénégal di yokk mandat président de la république ñetteel bi yoon waaye itam dàq élection présidentielle yi nga xam ne jàppoon nañ ko ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février atum 2024 jëf jooje daanaka violation bu leer lañ la maanaam daal dañoo salfaañe lii di état de droit ak droit démocratique bu askanu Sénégal yamul foofu rek ndax dafa salfaañe nday charte union africaine rawatina charte africaine bi ñu jagleel lépp lu jëm ci wàllug démocratie jëm ci ay élection ak bonne gouvernance rawatina protocole bu CEDEAO bi nga xam ne dafa jëm ci wàllum démocratie ak bonne gouvernance du ay kuréel yoo xam ne Sénégal mu nga ca biir teg ci xaatim na lépp loo xam ne jëm na ci règlement bi moo waxal nag kilifa yooyee di sàkku ci gouvernement bu Sénégal mu daal di topp sacralité processus démocratique kilifa yooyee di ñu xamal ni du tey yàgg nañu jël seen i gët teg ko ci réewum Sénégal jamono bi nga xam ne Macky Sall mu ngi na si pexe ngir rek yootu ñetteel mandat ba léegi seeni bët ñu ngi ci Sénégal. mandat boobee sax moom Macky Sall ci boppam woon na ni kat teg na ko ci suuf ndax ndey charte réew bu Sénégal mayu ko ko. waaye déclaration boobee dafa menoon na rek ay naxe mbaay la ngir rek mu xool beneen prox ndol la boo xam ne fa lay jaax ngir rek des ci nguur ak Sénégal la looloo tax nag tey mu daal di sukkandiku ci police ak yi ngir rek di duma askan wi nga xam ne ñooy wàcc ci mbedd yi di fësal seen naxar dog internet bi wéy nag di jëfandikoo ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci wàllum justice bu ko defee muy tëj képp koo xam ne rek jàpp na ne daal yow mën nga xajamal plan bi nga xam ne nas na ko ba noppi. Macky Sall daal ci tënk li mu bëgg daal mooy gouverner ci ay anam yoo xam ne dëppoowul benn yoon ak yoon président Macky Sall nag li muy def nii daanaka baaxul ndax dafay dugal réewum Sénégal ci guuta maanaam instabilité politique bu boobaa daañu dund anarchie ak jaxasoo goo xam ne daanaka dina mitti lool ci réewum Sénégal. moo tax nag bépp force bu nekk ci doonu Afrique da nga war fi mu nekk nii liggéey ngir rek ñu daal di dakkal lii raam jamono ji ci réewum Sénégal ndax nag Sénégal dafa war a solaat mbubu bañ ko xamee woon muy réew moo xam ne dañ ko ràññee lool ci wàllum démocratie waaye itam ñu naaw ko ci lool. moo tax ñu ngi sàkku ci askanu Sénégal ñu wéyal xeex bi ngir rek sàmm boobule démocratie. xeex la boo xam ne duñ ci weet ndax it réew Afrique yépp rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy les forces démocratiques dinañ ci jàpp. ci noone ñu ngi tàllal loxo CEDEAO Union africaine ak mbootaayu xeet yi ngir rek ku ne ci ñoom def ab déclaration bu leer lañ ci jëf ji nga xam ne Macky Sall jamono jile moom lay def ci réewum Sénégal ànd ci ak ay député yi nga xam ne daanaka comme sikkim gestu moo leen fi bàyyi. ñu bëgg wéeru ci ab projet de loi boo xam ne dëppoowul benn yoon ak constitution bu Sénégal. li ñu bëgg mooy lu mu gën a gaaw mu daal di delloowaat mbir yi fa mu ne woon ñu def élection yi dëppoo ak calendrier électoral bi constitutionnalisme ak organisation des élections ci waxtu waa nga xam ne nañ ko jàpp daanaka mooy cëslaayu démocratie loole nag dañ ko war a sàmm ak lu mu mën a jar. AGT News. Stopper le coup constitutionnel au Sénégal. Nous, intellectuels africains et activistes de la société civile, réunis à Abuja, tenons à exprimer notre choc et notre profond dégoût face à l'utilisation des gendarmes pour expulser physiquement les parlementaires de l'opposition de l'Assemblée nationale en vue de l'adoption d'un projet de loi inconstitutionnel prolongeant le mandat du président Macky Sall pour un troisième mandat et reportant les élections présidentielles qui étaient prévues le 25 février 2024. Cet acte constitue une violation flagrante de l'état de droit et des droits démocratiques du peuple sénégalais. C'est également une violation de la charte de l'Union africaine, de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, ainsi que du protocole de la CDAO sur la démocratie et la bonne gouvernance auquel le Sénégal a adhéré et intégré dans son droit interne. Nous exhortons donc le gouvernement sénégalais à respecter la sacralité du processus démocratique. Nous avons suivi avec un vif intérêt la détermination du peuple sénégalais à bloquer toutes les tentatives du président Macky Sall de se procurer un troisième mandat ainsi que son annonce de ne pas rechercher un tel mandat illégal, catégoriquement interdit par la Constitution du Sénégal. Il est désormais clair que sa décision publique n'était qu'une ruse pour tromper le peuple et poursuivre son ambition mégalomane de prolonger son règne. C'est pour cette raison qu'il a déployé la police pour arrêter brutalement toutes les manifestations couper Internet et continuer à utiliser le système judiciaire pour emprisonner et intimider tous ceux qui s'opposent à son ambition de continuer à gouverner par des moyens extra-constitutionnels. Le président Sall s'aventure à entraîner le Sénégal sur la voie de l'instabilité politique, de l'anarchie et des troubles civils, et toutes les forces démocratiques en Afrique et dans le monde devraient converger dans une lutte unie pour stopper cette dérive et maintenir le Sénégal dans sa tradition démocratique. Nous appelons le peuple sénégalais à maintenir sa lutte opiniâtre pour la préservation de la démocratie. Il s'agit d'une lutte commune pour tous les Africains et les forces démocratiques. Nous appelons la CDAO, l'Union africaine et l'ONU à déclarer ouvertement que les actions du président Sall et des crapules législateurs qui ont son projet de loi anticonstitutionnel sont contraires à la Constitution tout en exigeant un retour immédiat à l'ordre constitutionnel et au calendrier électoral prévu. Le constitutionnalisme et l'organisation des élections en temps voulu sont les fondements de la démocratie qui doivent être préservés. AGT News.